Clédor Ly mandataire coalition Sonko 2024 nekk na mbir moo xam ne euh, bett na askanu euh, lëmb surtout suma ma waxee askanu lëmb mooy ñi nga xam ne euh, bokkuñu ci Ousmane Sonko. Mhm. wala maanaam nekkuñ ci coalition beeg li ñu mel. li mu nekk ab euh, maanaam benn surprise boo xam ne. Hmm. defal nañ ko Ousmane Sonko defal nañ ko askanu Sénégal stratégie bi nga xam ne aussi. Hmm. ñoom ñoo ngi koy wéy di continuer parce que maître Clédor mi ngi wax ni Ayib Daffé liggéeyam pare na ci. léegi nag moom moo ci des. waaw xam nga xam nga mooy mooy li ma wax tey <laughs> suba ñu jox la ñu jox la Clédor. Euh, Clédor day xaw a day xaw a jaxasoo mais. Euh, li waral loolu ci sama xam bu gàtt. mooy hmm. mbirub candidature yi. bosu Ousmane Sonko dafa am particularité. ci ni nga xam ne noonu la deme parce que euh, par maa ngi fàdd sax détail boo xam ne nii euh, Clédor wax na ko muy euh, ñi nga xam ne yóbbu nañu li nga xam ne moom moo di seen ay dossier alors que seen ay caution joxewuñu ko. waaw su ma juumoon 73 la wax wala lu ko. jege non non 77 77 ñoom ñoo dem maanaam ñoom ñoo yóbbu seen caution. Mhm. te 293 candidats la ñu la ñu wax ci liste bi. waaw léegi ñooñu est-ce que duñ leen am boo xam ne. donc waa ñëwaat leen liste bi. il faut ñu génne si ñooñu parce que ñooñu bokkatuñ ci course non mais comment se fait-il que conseil constitutionnel moom moo waroon a am liggéey léegi léegi euh, ndax quittance bi ak attestation bi nekk na ay dossiers yoo xam ne soxla nañ ko aussi waaw léegi ci biir dossier léegi ñun ñoo war a def calcul bi léegi bu ñuy lim ña nga xam ne dugal nañ seen ay dossiers ñu génne si ñooñu waaw ah, d'accord oui mais je veux dire non je waxuma noom nit ñi quoi diw ak diw ak diw la mais qu'on sache que euh, ñi nga xam ne dugal nañ comme que am na temps boo xam ne nii dugaluñu euh, li nga xam ne moom moo di seen caution mën nañ jàpp ne Euh, liste bi wàññeeku na. <laughs> am na ñoo xam ne 93. léegi lan moo tax nga mais ñun nañ topp ci liste officielle bi rek. waaw bi déjà à présent demaguñ fenn mais am na ñoo xam ne bokkuñ ci course bi. waaw foofu laay waxee mooy. am na ñoo xam ne balaa ñoo yegg ci vérification ñoom jàpp nga ne dañuy toog xaar. parce man je comprends pas naka lañ mën a wala gars yi jàpp déposition yi ay faux quoi boo déggee déposé nga dem déposé ñëw toog ah en tout cas kan moo déposé ñu ne diw déposé na diw dépo diw déposé na loolu rek ab buzz la. te mhm. aussi Alpha Thiam tamit dem na. waay sa sa sa sama candidat sa candidat bi. Mhm. aussi tamit. Euh, voilà sa candidat bi aussi tamit euh, dem na moom Alpha Thiam moom ilee et aussi comme ni mu ko waxee euh, tantôt la nga xam ne mooy ñi nga xam ne dem nañu déposer seen caution mhm. te ba pare maanaam déposer wuñ seen caution autant pour moi ndax 77 candidats ñoo déposer seen caution foofu noonu ca CDC ngeen jox leen seen li nga xam ne mooy euh, quittance ak attestation mm-hmm. léegi nag euh, ñu gis ne foofu na ci ko conseil constitutionnel am fi 93 kon dale leer ne am na ci candidat yoo xam ne euh, déposé wuñ seen caution te dem nañ ci vérification bi du coup nag na ma jàpp ne foofu conseil constitutionnel moom moo waroon na taxaw temm ci kaw boobule ba boobule boor mais comme que vérification lañ wax après xam naa peut-être loolu tax ku ñëw ñu jël sa jël sa dossier. Mm-hmm. après nag ñu soog a sóobu ci vérification bi mais man dama naan kon kay loolu est que du loolu lay firndeel yoo xam ne convoqué nañ leen te ñëwuñu. Mm-hmm. Euh, je crois que je crois que je crois que loolu tamit mooy indi mbir mi la mhm. parce que ñuy gis que ne euh, que ni am na candidat yoo xam ne ñëwuñ ci vérification bi te pourtant euh, jox nañ la li nga xam moom mooy convocation est-ce que du lii moo tax waaw donc en mbir mi dina dina jaxasoo et dina doy waar lool lool lool donc mbir mi daal pour man il faut que dès maintenant pour éviter à ce que Euh, ñu euh, daal di euh, egg ci benn moment su ko defee nit ñi daal di jóg di wax ne voilà gis nañu mbir yi ne ma demee jaarul ci yoon pour man c'est le moment pour que ñu artu ci loolu parce que li ñuy wax artu moo gën àtte. il faut que gars yi dès maintenant ñu fexe teg une pression ci li nga xam ne nii ñoom ñooy gérer mbir yi. et que mm-hmm. ñu fexe ba lépp leer parce que gis nga mbir yi bu ñu sàgganee li nga xam ne moom moo xew. jamono ji ba ñu demee ba ci kanam rek mën nañ cee gis loo xamante ne nii du dal xel parce que nag. mbirub logiciel bi may wax mi ngi fi. Mhm. ba pare mbirub doublon en tout cas mbir yi daal gëm naa ne. Mhm. Euh, dina compliqué loolu mais daal. li wóor ba wóor mooy ñu ngi amaat yaakaar bu baax a baax ci conseil constitutionnel. ak liggéey bi nga xam ne nii moom lañ ko sas te gëm ne te am yaqin ne euh, dina ko def ni mu ko war a defee et ñi nga xam ne nii Euh, gannaaw vérification yi gis nañu ne matal nañu lépp y compris euh, seen ay parrainage ñooñu nañu leen euh, daal di nangul li nga xam ne nii moom moo di seen candidature ña nga xam ne itam jàpp nañ ne am nañ lu leen gàllankoor ba mënuñu nekk candidat ñoom it ñu ñu ñu génne leen ci ci course bi mais ce qui mooy que ni am nañ bu baax baax yaakaar ci conseil constitutionnel voilà am nañu yaakaar bu baax a baax euh, ci euh, conseil euh, constitutionnel ba tax na rek ñoom mën naa ne comme ni ñu koy waxee à chaque fois réew mi rek ñoom la ñuy daal di xaar ngir rek ñoom ñu daal di wax ak askanu Sénégal mais ni nga xam ne ni ñuy bàyyi xel mën ngeen a woote ci 77 227 12 12 ngeen dugg rek yéen daal di wax li nga xam ne rek moom mooy seen xalaat ca boobile mbir waaye tamit moom maître Ciré Clédor Ly mhm. daal di nay ku xam ne ne ñu ngi doo wax que ne 3. euh, trois partis ñoom ñoo bokk ci parti boobu lee ci coalition euh, Sonko 2024. Mhm. ba nga xam ne rek nit ñi xam nañ ko mooy coalition euh, Sénégal en tête de set di bu bu Guirassy uh-huh. euh, Moustapha Guirassy mhm. jiite et aussi maître Ciré Clédor Ly daal dinay dévoiler aussi yeneen ñaari candidat yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci coalition Sonko 2024 ñoom ñoo porté li nga xam mooy candidature am mhm. bokk na ci Front National l'Union de forces patriotiques UFP et le cadre de réflexion euh, pour un développement intégral euh, ñoom nag mën naa ne ñaari parti yooyu lee euh, maanaam Front nationale Euh, Front National lu des forces force mmh. UFP ak euh, le cadre de réflexion euh, pour un développement intégral mhm. ñaari parti yooyu li ak parti set bi di Moustapha Guirassy Sénégal en mhm. ñoom ñetti parti yooyu la ñoom ñoo porté euh, candidature Ousmane Sonko ñoom ñoo bokk ci coalition Sonko 2024 mhm. kon euh, maître Ciré Clédor Ly moo ko daal di révélé loolu nag ndiki tay la ginnaaw ba mu génnee ca vérification bi ginnaaw ba mu génnee ca conseil constitutionnel ci la daal di euh, xamle euh, li ni mel que ne ñoom ñoo nar a investir Ousmane mhm. Sonko ndiki le 30 décembre bi nga xam ne euh, jàpp nañ ko journée d'investiture léegi nag ñu xarandi ba xam boobu la journée dina am am déet ñu ngi nag xool information yi nga xam ne bien vrai que ni am na info yoo xam ne ñu ngi koy jot mais nag dinañ ko vérifier bu baax a baax balaa ñu ko jox suñu mbokk internet yi mhm. kon li nga xam ne gis nañ ko ñi ko doon nëbb di ko nëbb gis nañ ni euh, ñu ngi koy commencé dévoiler. Mhm. Euh, benn par benn plan yi nga xam ne. parce que parce que étape ba nga xam ne xëy na. Euh, ci lañ leen waroon a mën a gàllankoor ci mbiru candidature bi jàll nañu étape boobu. Mhm. parce que tey boo demee ba di dugal candidature te bëggoo sax communiquer ci parti yi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñoom ñoo boot candidature bi donc boo yeggee ci loolu dafay dafay dafay dafay donc boo àggee ci loolu. maa ngi perdre <laughs> maa ngi perdre le fil sax. voilà donc mbiru euh, candidature bi en tout cas. li leer mooy ñoom weesu nañ euh, période bi nga xam ne nii euh, ci la ñu doon nëbb seen ay stratégie parce que à présent li leer ba leer mooy seen i candidature dugg na ba pare. et que le conseil constitutionnel moom moo si des. Hmm. léegi. ñu xool ci li nga xam ne nii moom moo di parti yi nga xam ne ñoom ñoo ko configuré. léegi man sa benn question laay posé wu. mooy question bi ma la posé tey ci suba. mooy dissolution parti Pastef ban sens la am ci contexte bi. Euh, euh, bu ñu xoolee situation bi tey. Euh, bëri na tey ñoo xam ne ñu ngi doon avancé ay propos di wax mbirum article cinquante sept ak. Mm. ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci biir parti Pastef mënuñu mënuñu bokk ci ay élections présidentielles parce que loolu itam. il faut ñu jël ko au sérieux même si wax jooju teguwut fenn parce que dañuy faral di dégg ñoo xamante ne ni dañuy wax mais bu ñuy wax da ngay xam ne